léegi man may topoto les miel, les miel là ça c'est ma spécialité man mo xam ngeen sexe mom. lu de je suis prenante tout ce qui peut rendre fou un homme là je suis la présidente je suis la présidente de tout ce qui va rendre fou un homme moi les hommes je les rends fous je les rends gaga et je les rends zinzin je les rends gamin et vous savez que quand vous tapez sur internet regardez les journaux comment une fille de 29 ans une jeune fille lambda, peut être à la une de tous les journaux, Je suis à la une de tous les journaux, l'Observateur, le Pop, le Quotidien, patati patata. Et vous savez pas que vous faites ma promotion parce que qui pour le journal qui nga ma Arrêtez de me pro... En fait, vous faites ma promotion gratuitement. Et c'est très bien parce que grâce à vous, Intima va aller très loin. Intima a dépassé les frontières grâce à vous. Parce que je vous ai dit, Internet, c'est une machine puissante loo bindal nit ki doo ko yàq de danga koy parce que ñiy lire amna ay dof amna ay ñu am xel té dof yi rek ñoy commentaire ay commentaire yu dof ñu am xel et tout le temps dañuy commentaire commentaire yu am xel et avec Intima j'ai eu de d'excellentes relations au niveau international j'ai rencontré des femmes magnifiques partout dans le monde aujourd'hui j'ai des amis et mes amis sont ces femmes entrepreneurs là comme moi je ne peux pas avoir une amie qui traîne je ne suis pas ami au traîné. Je ne suis ni ami au traîné. Je ne suis ni ami au tahawalukat. Je ne suis ni ami à, et aux gens qui n'ont pas le bac. Tu n'as pas le bac. Je ne suis pas ami avec toi. Qu'est-ce qu'on va se dire, chérie, toi et moi À part Joe Niki. Et moi, je suis je suis courageuse et je suis avenante mon mon ak je te dis clairement devant tout le monde que toi et moi c'est fini comme j'ai fait avec mes ex-maris moi, je divorce publiquement. Je me marie publiquement et je divorce publiquement. Pour la première fois de l'histoire de la vie de Naboudash, je dis non au divorce. Je ne divorcerai pas. Et ça, je réponds à Tata, Mam, Tata Ndela, Maman Ndela J'ai suivi ton intervention par rapport à moi à la chaîne ITV. E et j'apprécie le côté maternel que tu as eu en moi. Parce que quand on parle, on sent que tu es une maman. Maman poule qui parle pour sa fille. J'ai beaucoup aimé. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est quand tu dis, elle est belle, tout le monde la veut, mais elle n'a qu'à divorcer, elle aura qui elle veut. Maman est là. Je suis jeune et belle, j'ai de l'argent, je suis intelligente, je suis Nabo Einstein, c'est vrai. Mais j'aime M. Bergan. Et l'amour a ses raisons que la raison ignore. Actuellement, ma raison, elle est en panne. Je ne suis pas, déjà, j'ai des problèmes. Donc, je ne suis pas en mesure parce que je suis folle. Une folle ne réfléchit pas. Je ne suis pas en mesure de dire à mon mari que je ne l'aime plus. J'aime mon mari. Et je l'aime aujourd'hui. Je l'aime demain. Je l'aime après-demain. Je l'aime cette année. Je l'aime l'année prochaine. Pour cette vie et au-delà. Je ne bouge pas de ce mariage. Tel que le monument d'Emba et Dupont. Depuis la préhistoire, ils sont là au rond-point de, de, de, de ville Je ne bouge pas. Regardez-moi comme le pont de Federer. Je serai comme le pont de Federer dans cette relation. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il borne, je serai Madame Bergam. Qu'on veut le porter peine, qu'il m'enferme une deuxième fois. Anyway, chérie, enferme-moi autant que tu veux en prison. Je suis Madame Bergam. Asse sous la porte et je ne bouge pas. Toi et moi, on s'est dit, pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu et les hommes. Et hein? cette parole-là, elle est restée grave dans ma mémoire. Toi, tu es l'homme de ma vie. Le mariage là, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Je ne bouge pas. Je ne pleure pas. Et je ne vais pas même pisser un mot. Que les Sénégalais m'insultent de manière fed. Of course. ñàkk pour sa jëkkër that's not a shame li gën a bon mooy pour sa far wala bu le góor takkul wala ku la siggilul Bergan, danga ma tu danga ma sagal ma samay mbokk ma nawle xew bi ma am sama benn moroom musul am xew bu mel noonu déggoo ma de maa ngi xew ba tey man lii sax si robb xew yi la grawul maa ngi indi ma livre yi nii maa ngi xew ba tey te yow yaa tax conseil noonu la bu lu naqari ñëwee dangay fàttaliku suukar si teg ko ci lu naqari maa ngi door a comprendre mag ñi naan sëy ñaari pot la potu lem ak potu xorom potu bi nag mooy sama mariage fecc naa fait man gis ngeen say mariage bo xamné ne marié baa ko fecc ba mu jeex maa ngi tok mariage bi la laa fecc ni di bandi bandi lu fait mariage yi baatal lu saf kon xew boobu nga ma may ak sagal boobu nga ma sagal devant tous les sénégalais pendant 14 kilos a pris mon argent et a fui et m'a traité de tous les noms accompagne sa sorcière d'Almeda la sorcière d'Almeda et 14 kilos se sont moqués de moi les Sénégalais qui n'avaient rien compris se sont moqués de moi en me disant Aujourd'hui, les Mauritaniens ont eu honte parce que j'ai un mari ingénieur. il n'y a pas de jeunes filles ici au Sénégal qui ont des maris ingénieurs en électromécanique. C'est Nabou Einstein, Madame Bergan, des Golen luma ma sañse mu accueillir ma déggoo ma dé ma bëgg sama jëkër pire na ma nama na nama rey nama ma tëj fu ma yóbbu dé ndax dom yi may jour la bëgg ñu bax na lan sama nday la ma liggéey sama kër bay daa fas photocopier man maay copier di sama yaay sama kër bay bougé wu ma passé wu ma dew ma noppi wu ma lakkatuwu ma madame Bergane tay suba gannaaw suba ku mu métti dama baa nga dem sa sa sa nga dem Joal dëgg neexut ku mu metti dinaa tal sa oto dellu Joal ndax ku ne xam na ni Joal dëgg fa yàlla boo fa duggee bëgg yàq nit séeréer yi dafa ñu de séeréer yi ñëpp am WhatsApp ñëpp am YouTube ku fa ñëw toog na sama wujju ngay yàq séeréer yi ñoo la naan kii xam nañ ko dafa baax duñ ko laal rawatina nag waa Fatick ngemb ma man Fatick dañ maa ngemb sama dëggante tonton Sémou Gningue ku ne xam na ko maag Sémou Gningue le roi du Fatick maa ngi moom ànd nañ ba mu génn samay loxo maa ngi dem nañ ba Dubaay ñu ñibbi si yàlla jëlee ko fi kon ku ma xamul rek danga may woowee eh seen rabu géej bi man bu ma ñëwee Fatick ñëw si maam Mbindis jëni dañuy may wër ñëpp jëni di cëpp cëppeelu saacuur mi di sang rabu géej gi saacuur mooy sangu maam Mbindis déggoo ma bu ma ñëwee Fatick day bàyyi lépp lu muy def ànd ak man xaaju guddi biir maam Mbindis ñu ma sotti ay dugub ak bañ a ak suuf ma ne dama ne eh recul. yéen ñëpp dañu ne recul ku dem Joal le maa yàq match nul échec ku dugg si xam nga bëgg maa yàq match nul échec Jalañ match nul échec man maay Jalañ maa ni nii man maay sorcier bi maay Jalañ bi déggoo ma dañ ma ngeem rawatina ma am liggéeyu ndey sama xol rafet ama Baba baba fou du Ken bugul. j'ai acheté ce livre pour vous et je vais le lire pour vous De leen ma de. le baobab Fouta kenn bëggul maa ngi nii toog le baobab Fouta maa ngi nii toog mënoo ci ma saala yàlla ndeer xoolal saala wala kasira nangu rek wala bañ maa ngi mel ni naaj le dieu air xam ngeen le dieu Ré l'Égypte antique Ré c'était un dieu de l'Égypte antique seen jàng soriwul parce que am na ñu jàngul te li gën a métti ci gaaw suuf mooy ngay wujj ak ñu jàngul le dieu mooy le jour du maa ngi mel ni re moo tax tay ma yóbbu leen Égypte en def sama xolal def ala pharaon déggoo ma de maay pharaon bi déggoo leen ma de am de pharaon ma nekkoon époque xolal damay nekk buur man je suis un pharaon mënoo leen man dara xool bàyyi teg ma di dege déggoo ma de te ku jéemaan laal sama ku ma jéemaan laal nii non ici repose donc avec un grand R s'il y a encore quelques-unes, je dis bien quelques-unes, ou quelques-unes je conjugue ces plusieurs la conjugaison s'il y a encore quelques-unes des vieilles mémères qui veulent tenter le démon Barbara allez-y encore me toucher vous n'avez plus le reflet de votre vie on va vous supprimer de la liste des vivants des góoleel et je me protège

maa ngi nii pharaon la dieu le dieu du soleil ree Néfertiti mi ngi doon dégg époque euh, de l'Égypte antique Néfertiti ngi nii toog muufu ma ma sëy bii sénégalais yi nee nga nabu daal da ngay sëy par force te dama leen a man dama dëgër bopp te dama dama nangu ndigal te ndigal bi dama ko wéyee nabu daas yéen a ma wax nabu daas ngir yàlla ñun amatuñu crédit heure ménage kon xayru na neex seen crédit heure ménage dafa jeex <coughs> na neex ndax man mii borom heure ménage yi sax damaa plafonné beneen góor du ma tiim ku dul monsieur Gustave sama yaram gi ni mu jékkee noo ca neex intima yi war ma nii naan ma intima intima intima xoolal Gustave you the first you the last on my body bu ma yuuxootee ci kaw néeg rek Gustave yi sama kaw man seexlu naa beneen góor bu dul Gustave na mu ma ci nag <coughs> ma dem nekk sër man fi mu ne nii ba nek sœur pour mu sama cër mi ñëw nek sœur ba ma nek euh, mam jaar dem sa daara poroxaan nga di ba joxe ay lek di tok bañu ma soit ma dem Touba soit ma nek sœur à vous de choisir mais pour benen go tim ni oh my god mun su Gustave man yow lay laaj sama yaram yow lu sit man yow la bëgg bu sa yaram daw rek ba sa yex dess yow Gustave xam nga sa biiroon ngeen tok di ma man xam lep dong danga may bëgg di ma reetaan fini ne yaa ngi bay daal ndax man dama lay fajj mais Gustave beneen góor duma tiim wala rek ma jam la say naa laa kër yéen Barbara laay génn jël paaka rek jam la dagg sa xuur yi man kenn du ma jege le seul unique homme de ma vie s'appelle Gustave Gustavo et Barbara c'est pour la vie parce qu'il y a beaucoup de Gustavo dedans et beaucoup de petit Barbara dedans sénégalais nag li leen métti teguma leen ko ndax sama xew lañ bëggoon amuñu ko ndax bëri na ay jeunes filles yu vierge nekk fii musta sëy mais gisuñu lu ñu am déggoo ma vierge c'est c'est une ñeenti yoon man man ma ingénieur en électromécanique depuis 30 ans Ha! oh my god palmarès leen métti nag teguma la ko mais regardez, attachez vos ceintures car avec Naboudage, le les cœur va plus fort oh my god oh my god toi et moi Gustave là c'est jusqu'à la gare maag bug, ba buntu paradis buntu paradis ba buntu enfer à toi de choisir dañuy ànd paradis ba enfer parce que bawuma bau la tay bawuma la suba noppiwu ma tay noppiwu ma suba sey sey julit idda ñetti weer la comme bind nga ma mail né non comme man na sénégalais nañ comprendre man ma ñaan ba man góorlu ma may baat man ma man ma gaaw ci même sama baat ci lettre bi li apre wax moy après après deux demandes successives de ñaan baat comme da nga mëna ñaan baat rek may na sa baat loolu la wax ci mail bi mais musul toog yow yéen ngeen boo leen di bind ngeen bind sax lu wóor man maa ko ne may ma sama baat deux fois te mu nekk góor nekk góor xam ngeen góor ñi rek ku ñaan baat nu ma parce que man ni ma ko ñaan baat dafa neex chérie même sama baat j'en peux plus mu xaw a gis boppam may ma baat mais may baat mail l'islam reconnaître ko jigéen kenn du ko may baat mail mail c'est pour les mail mu ana baat ak mail jàng nag bébé ku jàng nga. man c'est la première fois que moi, je suis xanaa xam nga ma gën la parce que classe ndax yow vocaloo ma ko de danga ma kaa après def salutations salutation Avec toutes mes salutations signé monsieur Berga yi sama xol bi jóg ma oh l'homme de ma vie ba nga signé laa daanu man mail bi man en fait man dama la bëgg nga bëgg ma bëggante je te cherche tu me cherches on se cherche nous nous cherchons et eux là-bas ils se tuent mais toi et moi on se cherche je te cherche. Tu me cherches. Nous nous cherchons. Il se cherche. Le vous, je le saute. Parce que moi, je ne connais pas de vous. Je connais le il. Il ou elle avec elle se cherche. Les gommes, toi et moi. Jusqu'à la gare de Congo. Ils ont beaucoup Congo. Congo, du nañ. Congo, du nañ. mani du nañ. Benin, jug nañ. Samay maamu ñak yëpp laa sulliwaat na leen toog leen en vie, nu xeex